déggal ma dof bi lu muy wax rek xoolal kii yow wéru yow li may waxatee ngi nii yow nekkite vrai dof nga nan laay defee deux secondes yow nga xamante ni yow dangaa ngaa tilim sa teen yi sama kaw ah fu la fekk yaa ngi yuuxu nan fu nit ñi tollu dégg la nga bëgg ma def deux deux secondes même sama jàmbaay léegi xam la laa soxla ma li nga yëpp man waxuma ko yooyu yëpp ñor ma samay deux cent mille laa bëgg nga yónnee ma si nu mu gën a gaawee loolu rek moo ma ñor amul leneen yow ñàkk jomba ba dee amoo benn jom yaa farligu fii guddi gama la fi téewee ngay yuuxu yaa ngi may rey yaa ngi may rey ba kër dëkk bi yëpp ñëw wër na tey nga ñëw fii de naan mënuma def deux secondes xam nga loolu soo ko waxee sa gàcce la ñàkk jom ba dee bela saf la maa ngi daan bela sax ndax bela bu kuñ koy woowee ku rafet la ñuy wax mais ñaaw xam la laa bëgg delloo ma samay deux cent mille loolu kese laa la laaj laajuma leneen bu la neexee na nga dem ci ñi lay dig caabi oto borom 15 millions nan la sax may jet privé man sama yoon nekku ci yow en tout cas ak yow c'est jeex na jeex na. waa Karim yow 500000 moo ko ñu may saaga billaay Karim du ma la wax dara yaa ngi may saaga di ma xas ba naan damaa ñaaw te man ah billaay du la ko baal boo wàccee nag ba may baal di nga xam lépp dëgg man ngay saaga nag yow nga tegal ma ci ngeen dama xéñ man ma xéñ yow Karim man man billahi duma la wax dara dama lay porter plainte ci sa deux cent mille doo ko mos a jot sa aduna demal billahi aduna ngi sa kanam yow lii ko rew fi ngay mujjé ya? di xeeb deux cent mille te fii nga mujjee tey ñëw di jooy li damay porter plainte ñee damay dem def nii damay demal nga porter plainte soo demee nga wax leen man maa la wax ni yow xeeñ xam nga te ndax yow yaa ma di man deux secondes laay def fan laay deux secondes ci mbir bi wala soo demee porter plainte ne leen man maa la wax da ngaa xeeñ te leen rek laa leen ñaar gis nga bis boo demee ba foofu ba porter plainte pare nga laaj leen ndax xeeñ na wala xeeñul sama xaalis laa soxla delloo ma sama xaalis man ak yow jeex na tàkk sama xaalis kese kese laa soxla loolu dong moo fi tee ci yow. man nga naan damay xeeñ yow cinq cent mille moo tax nga taxaw fi di ma traité naa ma dangaa xeeñ dangaa xeeñ yow yaa ma gën a xeeñ téeméeri junni yoon te musuma la ko wax yow say xet yow sa xetu pokotaan ak feneen ak feneen damaa xamul lan la yow yaa ma gën a xeeñ téeméeri junni yoon. danga naan bàyyante laaxu akubar bàyyante man ak yow day mel talee doo commencé bàyyiwoo ma bàyyiwu ma la te danga may envoyé sama xaalis par la force man it envoyé wu ma la deux deux cent mille par la force bu dee man kese tous doo ko jot ci mu wag a piita décembre bii di ñëw moo tax nga bëgg a bàyyante moo tax nga bëgg a daw yow lonku nga abadan daa iman du fii na ngay lonkee ko bu soobee yàlla doo dem fenn tam tey incha allah maa ngi ñëw xaar ma rek yow foo jëm nga de fan fii bëgguma la fi gis nee naa la jeex na jeex na gis nga su ma la fi gisee lépp lu la dal yaa teg sa bopp man ak yow jeex na sama xaalis laa soxla nga envoyé ma ko jàmm ne ñooy nga dem ma dem ok te nga gaaw nag xoola fi mu toll nii nga transféré ma sama xaalis dong laay xaar yow dong laay xaar soxla naa ko trop gannaaw ba na ko xeeb envoyé ma ko léegi dégg